Conseil sénégalais des chargeurs Goseek moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyanto yéen a kaay goo xool fekk fa Abdoulaye Wade journal bi di réew mi quotidien nee na Abdoulaye Wade yàq na musiba ak mbelengaan Macky Sall ak ñi mu àndal nee na ay négociation secrète moo am maanaam waxtaan ci seen biir lu kenn yëgul ngir seen i intérêt personnel te coalition bi coalition la boo xam ne dañu ko waxaale ba juboo ci ndoddu askanu Sénégal dialogue politique bi moom ay naxaatee ki bi di direct news nee na noppi gi Abdoulaye Wade noppi woon na ko daan na cay génn nee na Idrissa Seck mi dem lëngu ji ak Macky Sall ñu benn yoon ci ministre de l'intérieur bu bees bi di Félix Antoine Diome yéen a kaay gi nee na Abdoulaye Wade ma ngi sàkku goo xam ne ci opposition bi lay nekk kuréel gu yaato yaato ngir nag mën a jàmmarloo ak Macky Sall réew mi quotidien nee na Idrissa Seck mi nga xam ne moom lañ fal yees ci conseil économique social et environnemental personnel u cabinet Aminata ba mu fa fekk ñëpp la Idrissa Seck dégagé yéen a kaay gii de la Tribune nee na bàyyiwu fa kenn waaye nag démb ci talaata ji talaata la joo xamante xam ne potob courant moo leen maas ñu dee am na ko gis ci géej gi la na ñett ñoo xam ne dañoo réer mër seeni mbokk ca Podor am xam ne Jurbel la ñu ko fekk mu dee démb askanu a kaay gii la Tribune nee na démb talaata xam ne talaata ju doy waar la ci réew mi journal bi di réew mi quotidien na ñaari xale yu ñoo ngi faatoo ca Grand Yoff maanaam xaar yàlla ab potob courant moo leen maas journal bi di Vox Populi nee na waa Senelec ubbi nañu si ab enquête xool ana ñan ñoo waral jéye joojee am yéen a kaay gii de Libération la fa am mooy Mamadou Lamine Faye mi nga xam ne moom la ñu tuumaal ne dafa jël doomam joo xam ne fukki at ak ñeent kese rek dong la ama dugal ko ci gaal yi ngir mu demoon Espagne xale boobee dafa mujjee faatu waaye baa ji di Mamadou Lamine yoon daan na koy teg loxo journal bi nee na xale bi faatu duudu la tudd nee na ñu sax dafa faatu ci yoon wi ñu jël ko sànni ko ci géej gi nee na waajuram bu góor moo ko sacrifié yéen a kaay gii di Les Échos nee na lu toll si ñeenti téeméer ci ay nit ñoo ñàkk seen bakkan ci fan yu néew ci ndox mi te nag bis boo xam ne dañu koy jagleel ñi faatu maanaam amal ab dëj national lan ñu bari di réclamer jamono ji waaye nag li nga xam ne moom la ñu si nemmeeku mooy gouvernement bu Sénégal moo ci noppi di ko minimiser di ko tuutal di ko soofantal yéen a kaay gii de la témoin nee na en tout cas immigration clandestine bi jërul na xool fu sore li ko waral bokk na ci pauvreté bi nga xam ne bëri na ci réew mi ndax bëri na ñoo xam ne dañoo ndóol ba maara day taali askan wi sonn am na ci ñoo xam ne jamono ci dañoo tumuranke ba a wóolootuñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi amatuñu yaakaar ci ñooma yéen a gi di Sud Quotidien nee na lu jëm ci wàllum xeex mbëkk mi ay milliards yi milliards la ñu siy dugal waaye nag njariñ la nga xam ne moo fay jógee bëriwul yéen a gi di évidence nee na li jaaxal askanu Sénégal mooy bëri na ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi faatu ci géej gi te nag gouvernement bu Sénégal yooyu si yàb bi maanaam dafa ne pata pataaral ci mbir mi te loolee lu doy waar la yéen a kaay gi di la turbine Mamadou Lamine Diallo nee na li doy te Sénégal yi war koo xam mooy lu jëm ci wàllum koom économie ci réew mi Macky Sall daf cee laj ji Macky moo tële su dee askan wi Macky la ñu yaakaar ngir mu suqalee économie réew mi seen yaakaar dina gën a tas yéen a kaay gii di Dakar Times nee na Macky Sall budget 2021 bi lu jëm ci wàllum xale yi ak jigéen ñi yokk na ko ay milliards et milliards yéen a kaay gii di L'Observateur nee na lépp lu ñu ko def rek dañu ko fay borom ndax yàgg na fee song nit ci wàllum politique yàgg na fee tuumal nit ci lu jëm ci wàllum détournement mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa Sall loolee rek doy na ci ab tegtal yéen kaay gii di L'As njiitu mi di président Macky Sall tey du amal conseil des ministres dem na ca Paris la France yéen a la soleil mu ñu xamal laan ñu niki démb la woon bëccëg bi ñu jagleel la armée sénégalaise njiitu mi am na ay dikk ak ay bëgg-bëgg yu bees yoo xam ne wax na ko armée bi nee na leen lépp loo xam ne jëm na ci seenu yokkute dooleel leen dinañu si daal di taxaw moo xam ci wàllum géej gi wala jaww ji wala sax jéeri ji yéen a kaay gii de l'observateur ak Vox Populi nee na bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon armée bi niki démb Macky Sall wéetu sa ndax Idrissa ci ginnaawam waaye nag ba njabootoog Cheikh Ahmed Tidiane ci ne yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na am na ñaari mécanicien agresseur yoo xam ne dañu leen a rey ci rond-point Liberté 6 mbir mu ni mu demee ñaari agresseur yooye moto la ñu yoroon waaye nag dañoo sàcc gars yi topp leen yuuxoo leen am kuñ ci dóor ab birig mu wàcc gars yi tiim leen dóor leen ba seen xol sedd ñoom ñëpp ñu dee yéen a kaay gi di Stades ci match bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau sa a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Khadim Gadiaga na ñoo xam ne ñoo koy lam